sëriñ basiru mamanon dina xamal ni fi neewon sëriñ bu baax bi fi neewon ba ñepp xam na kenn la Cheikh Ibra Faal bi lay xamal ni ko xamul ñoom laay xamal ne sunu sëriñ moo to jabal tamit ngi daru kenn la bismillahi min seytaani rajim bismillahir rahmanir rahim ñi nuyu ñepp di ziyara njabotu borom daru Muxti gi di ci jiital sëriñ basiiru mi nga xam ne mooy ab xalifaam ak ay rakkam ak mboolem sëti borom daaru Moxti di ziyaara njabootu sëriñ Abbas gépp yaakaar naa nag ah, sëriñ bi wax ci moom xëy na dina xaw a jafe ci ñun waaye tamit dinañ ko jéem a def ndax fi ñu toll ak fi mu toll réew mi sëriñ bi di sëriñ Abbas nga xam ne moom lañ jooy ci noppeeguñu di ko ñaanal bu baax a baax ñu fa yéene wax rek ci digganteem moom ak njabootam. nga xam ne sëriñ dafa amoon ñaari njaboot moo ko daan waxal boppam sama njabootu deret ak sama njabootu xol nga xam ne mooy dong yi nga xam ne ñoo nekkoon ca tool la jàppoon njabootu xolam ñi nga xam ne mooy njaboot yi nga xam ne moom la ñoo meññi ko ci moom mu tudd leen sama doomi deret yi moom nag mu nekkoon jëmm joo xam ne ku ñemu woon maam responsabilité ci nit ki la di ko tàmbalee ci bi nga nekk xale ñun bi nga xamee ne ñi ngi nekk xale ci lim njëkk a mooy ci jaamu yàlla ndax jamono boobu def ñu daan tek ñuy fanan ci biir neegu boppam ci biir benn neeg bu nekkoon fi boo xam ne benn néegu ñax la fi la daan yendu bu ñu masaan xëy li mu njëkk def la mooy jàpp ñëw julli xam ne loolu la yar ci njaboot mooy ci jaamu yàlla ak ci ci liggéey boo demee ba toll ci liggéey mu mu def loolu ko ñun biñ tollee ci ci ci jaam ci ci jàng jaamu yàlla daf ñoo jàngal naka la ñuy jullee même boo masaan toog toogin bu baaxul sax ci ñabaas dina la jubanti ba nga toog ni nga war a toogee bi ñu defee noonu ba mat a jàng mboolem njaboot gi yëpp kenn ku ne mu yóbbu la foo xam ne nga jàng fa alxuraan ba ba mokkal ko dellusiwaat mu yóbbu la nga jàngi xam-xam noonu la koy defee ci mboolem njaboot gi ci kaw ba ci suuf yaakaar naa ne du ma wax ne daaru moxti ki si ñabaat ñu ëpp ñu mokkal wala daar waaye yaakaar naa boo fi ñëwee ci xale ba ci suuf mag wala mag ki gën a nekk mag ba ki gën a nekk xale ñëpp ay nit ñu mokkal alxuraan lañ ay ay nit ñu yaru ci loolu tamit mu mu tàggat noonu ay ay njaboot gi nekk ca daara ja mooy mboolem njaboot yi nekk ci tool yi boo demoon ñoom ñëpp wàcc alquran wala ñu bari ci ñoom ñoom ñëpp mën a jàng xasida yi nu ne di nungu nungoo jaamu yàlla sëriñ bi tamit nekkoon nit koo xam ne ku ku amoon fulla la ci boppam ku amoon jom damay wax ne sëriñ Abbas ñu bari dañuy maanaam bi nekkee xalifa dañ ko tàmbalee xam mais sëriñ Abbas dëgg-dëgg ñun bi sëriñ Abbas ci jaamu yàlla ga ak ci ci mbaax ga boobu nit ñi yàq nañ koo xam bi ñu nekk ak moom fii ba bi mu nekkee mag sëriñ dem na ba nga xam ne mënatul taxaw di la mais day naafi gi da koy def ba keroog mu fi jógee day toog di ko def mosuma koo gis tamit muy julli waxtu mu am farata toog ba ni mu nekkee mag bu julli dina jéem taxaw ba julli ko ba pare même yow sax da nga ko yërëm mais dina ko def bu demee ba toll ci naafila soog a soog a toog maa ngi fàttaliku benn benn timis mu mel ne mbaggam day metti mu jàmbat ko mu ne li ko waral mooy ne na day wér mu wér de pour. manam euh, ñaanal ñi nga xamne mom la ko yalla denk ñen lool moko waral maanaam wirdu bu metti bu muy wirdu pour ñaanal ko moy njabotu borom daaru mo xati gim yelif nga xamne ko koo xam na lim doonon kon daaw yaakaar naa ñëpp dégg nañ seigne bakki mom seigne mustafa may wax ko lool seigne bi fi kanam la waxe ci boba euh mas mi xewagul ñun ñi ni seigne Muudu mi la joxon digal mu dem ci radio bi pour wax ñu jang ay khassida ngir neen dafa gis bala bu ñew kon koku ku saroon ci mom la ba ba nek mak tamit mbooleem ñun ñii ñëpp daan nekk ci moom ku nekk bi si ñabaas wax na la wax joo xam ne da xam ne kii maam mi ngi tàggatoo te loolu lu jafe lu jafee xam la mooy dem ba maanaam suñu borom li mu dogal ci yow wala bis ba mu ko war a dogal lépp nga xam ko sa diggu loxo bi darajo yooyu nag ay darajo yu ko yàlla jox la te lu mën a nekk la ndax yàlla suñu borom ci boobu moo ñu xamal ne maanaam moom moo moo wutale nit ñi ci ay daraja moo ne unsur kay fa fadal na baax duum xalaa baaxadin wala axiratu akbaru darajaat wa akbaru tafdila mën nañu xool naka lay wutalee nit ñi ci seen daraja am na ci ñoom ñoo xam ne ñoo gën a am daraja yu gën a kawe am daraja yi comme nu mu ko defee noonu rek noonu la Sëriñ Abbas ne ay darajaam yu ko yàlla jox yeggoon na ci mu xam bis bi nga xam ne moom la war a wàcc ci jamono ji mu ko war a defee lépp dara ump ko ci ba ñun ñi ñëpp boo xoolee suñ kanam yi xëy na gis ci ak dal maam moom moo ñu tàggat ci loolu kon sant nañ bu baax a baax boole yàlla booleeg moom mu nekk suñu sëriñ nekk suñu lépp diko ñaanal fam nek gënal ko fi mu juggé di ñaan tamit wa télé bi yalla sàmm leen ndax gis nañ liggéey bu rafet bi ngeen liggéey ci ci bis bi alaykum wa rahmatullah rahmanir rahim auzu billahi minash shaitanir rajim man man yusuf job la talib seigne abbas mbacke la def nak mom presque ayul mat fan wéré at wala lu ko upp waaw lima mëna wax dal ci bi ko tu yalla la won jaambur la won maandu dalna am na fayda am na fulla parce que ku dem dafa yàgg bay fi mu mujj bay mooy Koumpentoum diggante Koumpentoum ak Meretu diggante Meretu ak Koumpentoum toolam mu fait 7 kilomètres waaw ba mu fay bay dem di ko bay boobu àll bu àll bu xonk su forêt classée lañ ko mënoon wax benn soose bu am xam-xam avant mu fay ñëw ne noonu waa dëkk bi ku tuuti euh, bopp bi am leel dina fi ñëw samp fi dara wàllu yu kaamit te ba mu fa demeet loolu la fa doxal tubloo fa ay séeréer tubloo fa kuy catholique dafa daara joo xam ne ndongo yi xiifuñu maruñu rafluñu man mi lu fa daan dem ci dund sama loxo bi lay jaar moo ma jox xaalis ni ma jëndal li jëndal li jëndal li day jënd ba daara yi nekkoon ko ci yëpp dañ ko doon ñee mu yar ci diine yar ñu ci ngor yar ñu ci doylu yar ñu ci lislaam man def fi ma jëlee man maa ko moom man de fi ma jëlee man xam naa ko man waaw fa ma jëlee man ba indi ma fi ba fi ma toll tay xamna ko suñ bi amoon ci man euh, confiance bo xamni euh, xamni ni lu mu doon dox dakaru lepp ma ko doon dox njabootam gi ni tok de man nañ ma lo loo yëngalu mu ne woo yuus yëngu mu ne yuus du sama alal du sama jang alxuraan du sama du sama man-man du sama dara wante ko cofeel bi mu amone ci man loolu la te man dama jël sama lepp jox ko yemale mo kon dara ba fi may tok li ma la wax yemaluma ko ma ko yemale dattuma ko dama yemale njabootam ak dara ak ñu ko tuddee mu yar leen waaw sëñ bi naan dañ koy sant di ko gërëm te xam ne li mu waroon def ci àddina yëpp def na ko doomam yi kenn du leen gis ñàkk fayda kuñ ko tuddee mu yar la doo ko gis ci lu ñàkk fayda doo gis lu naq di yàlla lu neex yàlla la ñuy dox ñu julli waxtu laa biir nañu lu ñu la jox doo ko yëg sëñ bi li mu def ci lu baax ci àddina yëpp bi mu dëddoole ku ñu bari xam fii man toog naa fi ay ñëg ñëw di jooy naan li ma seqoon ak sëñ bi joob xamu ko kenn xamu ko même boo gistal bugg ci dara julli jàpp nekk ci li ko war a nekk waaw ba dem xilaafa gi bi muy ñëw ci moom dafa dajale njaboot yépp ni leen lii sàkku du lu ma sàkku woon daf fi xëy si rek waa def fi gontaat bu leen ci lepp bu leen ci feyeeku compte maam Cerno bi ñu ubbi fii dañu def lañ leen léegi ubbi leen compte maam Cerno lu ñu fi indi ci dëgg ko pour maam Cerno man moomu ko maam Cerno moo ko doomam si ñëwul doomam signalé wul ne mu jël jël leen du ay doomam du njabootu njabootam ci waa kër maam Thierno yii la jël ñu ñetti nit ñetti kilifa ñooy signé ñooy génn ñooy dugal moom signé ay doomam signé wuñu xila li mu fi jëkk a ba mu jëlee xilaaf yi dafa woo borom da kuy sëtu borom daaru kuy doomu borom daaru wala kuy xalifa sa baay borom daaru la jël yóbbu leen kan borom daaru gi ñoom ñëpp leen yow liggéey baa ngi ñoo ko bokk ñoo ko bokk ñun ñëpp ku ne la mun a bay waaram parce que ñun daaru musi la ñam kilifa gu mel noonu nag bu la ko yàlla dénkee ñun ñu ngi ko door a xam bi mu dëddoo waaw defar na boppam si zaahir defar boppam ci biti ba muy dem ba muy mujj dem ba ñu jàngee kaamil ba la sëñ bi dem dem bu rafet te kenn tiimu ku dul njabootam waaw yàlla suturaal na ko toujours la doon bëgg ba njabootam ko suturaal ay doomam ak turandoom yi mu yar ci kër gi ñu ko suturaal ba mu dem dem bu rafet te dem bi dafa dem mu maam Thierno Ibrahima daamal daaru alxames ci guddi lañ denc maam Thierno Birahim Ndaama Daaru ci ñu ko denc muy bésu àjjuma kon nag sant nañu yàlla def na mission sur terre dafa dund ci sutura dem ci sutura defam lépp ci sutura bëggul sax luy luy yëngu waaw sëñ Abbas moom soo fekk mu wax lu ko lu yoon nekk mu lu def noonu toolam yi liggéey jaamu yàlla xiirtal ñu ci ñun rek retenue bi man maa ngi fàttaliku ba bâtiment bi mu nekkee fi mu nekk ci dugg doon 4 heures du matin leen bu fekkee ni ñu toog marakis day wéq wala mu jël di la ko sotti benn bés ñëw na fekk ma kii mu ne julli ngeen man ko jaa waa jàpp nañ mu jul mun mu fii tooyul de keroog am naa gers kersa keroog laa bàyyi nag nga xam ne dootuma dootuma def lalu bokkul ak si jaamu yàlla ci la ma xirtal ci la ma man day man sant naa ko gërëm naa ko bu baax njabootam ji ma nekkal parce que foo ma tegoon njabootam teg nañ fa te du dellu ginnaaw barke borom Tuubaa jaayante naa ak njabootam ba keroog ma koy fekki waaw nee naa leen lu sëñ bu bëggoon rek dama ko sas rek dox leen ma ko dox dinaa ko dox waaw parce que dem na ci man ba fi mu dafa sori ci man bi mu wàcc liggéey mu ci naan ma yu sa sa sëriñ sa xarit dem na te umpul umpul jëmm yi toog parce que wax ju day am seede fonkoon na ma bëggoon na ma bëggoo xam ni ah bi mu mujj gisante moom bi ñu bi ñu gàmmoo ba noppi laa mujj gisante ak moom ba ñëw ci néeg bi fekkoo ko ak sëñ xaar bi ñuy tàggoo mu ne mu ne ma yuusu ma ne ko naa mu ñaanal ñu dem nag la dogal ken mu ci dara sant dum na ci ngor dum na ci l'islam dem na becc ngor ku bax dem ku ñepp du joy te mag bëtam ñepp ngi ci ñun moo tax ñun ni njaboot gi dañuy laxasaayu tak ki fi khalifa ñu top ci ginnaawam liggey ñun ñepp nek ben te duma nangu kenn ku diviser famille am sama bakkat bi laa tek bark Abbas Mbacke ku ko naa def na la toxal ba pare wo njaboot gi wax la waaw bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina bark Abbas Mbacke